waaw ok noonu la day nañ parce que moom moo jël ak deux deux kuy bu góor bi si enveloppe bi génn génn ne dafa fekk ci biir enveloppe bi soxla góor bi ñu bokk waaw ok noonu la day nañ parce que moom moo jël ak deux deux kuy bu góor bi. Attention, quel est le problème? Non, non, il paraît que entre les trucs là, il y a eu, il y a enveloppe. Ah, Il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas de problème. Les gens cherchent des problèmes. Ils veulent arrêter de créer des problèmes pour C'est ça, c'est bon. Pas de problème. Vous êtes de quel organe, monsieur C'est toi qui cherchais l'autre. Ça y est, c'est réglé. Tu as voté maintenant. Ça y est, c'est fait. dama la ne eh wuyu ma dama leen nga xaar paa bi suñu côté nga ànd taxaw nga xaar ko fii nga am. léegi am na message bi taxaw yi. waaw mais yow. koy sàcc Abdoulaye Wade amul fi benn photo bureau bi dañ koy sàcc dañ ko sàcc danañ ko sàcc danañ wax danañ wax boo ma jàpp ñu tëj ñu danañ wax am ñëpp dégg danañ wax waroon ñu bëgg ko jaxase loolu c'est ça moo tax presse bi ñoo nar a vigilant rek presse bi rek ñoo nar a vigilant ci bureau bi ñu ñu en rouge noir moom la gis bon volonté animé mais su leen bon wala animé wu aussi amul benn sens moo leen animé loolu mooy problème da leen bon volonté animé moo leen animé la gis nga nit nit nit nit nit dafay nit dafay nit dafay normal alors fii Sénégal le processus électoral là la fin tout est contrôlé rien gën ñu dul sàcc élection depuis 2000 dans dans pays là ah, en tout cas les gens s'énervent non du question non non bon dama ñëw ci bureau de vote bi il paraît que gars yi ne ci biir dañu jël enveloppe di def ay euh, ay bulletins Ablaye Wade quoi xam yi ne fii nag di ko déplorer parce que loolu aussi jaadu parce que ñu ay màggi jëm lañ su ñuy déplacé mais y a minimum boo xam ne war nañ ko fekk élection aussi transparence la si au départ amul boobu transparence mais ça vaut mieux que nit ñi bañ a déplacé wu ñun nag loolu mënuñ ci dara lu ñu fekk la mënuñ ci dara mais